ñi ngi Adi yalla bu baaxa baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñepp jàmm te diko saap saabu si di leen nuyu bu baaxa baax di leen ziyara tamit lu bare ba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu amaan lol togaat fi fii jàkkaarloowaat ak yeen comme niñ koy defee sa su nit fi lay xewé ci biir xumbata dagan ku ñu bëgg top rek da ngay abonné ci page youtube bi xumbata dagan insha allah bu ko defee nga mëna top suñuy waxtaan ñi ngi leen di béggee lu bare bare ma sha allah tey nag dañuy ñëw ci fàttalante ba léegi rek dañuy tegandi sunu baaraam ci àqu yi dinañ ci ñëwaat incha allahu di leen béggee lu baree bari gis nañ ni ngeen di ni ngeen ñuy toppee ci rajo yeeg ci télé yeeg ci facebook beeg ci youtube bi macha allah di ko sante yàlla bu baax a baax waaye tamit di leen ko sante yéen tamit ndax tamit ah ku la bëgg rek danga ko danga ko war a safoo yéen tamit macha allah di ngeen ma koy ni ngeen ma koy defee moom bég naa ci lool lool lool waaye fi ñu ñëwoon sunu waxtaan comme ni ngeen ko seetaanee ci seen TV bi mooy kersa ci biir sëy ndax nit ci boppam war naa mën a am kersa ndax sëy bi tamit nit ki war na ci am kersa ma ni waaw waaw nit dafa war a am kersa nit ci boppam dafa war a mën a am kersa ndax mooy yoon loolu la yonent sallallahu alayhi wasallam wax nee na alxayaa kulluhu xayr nee na kersa léppam yiw la kon nit ki boo amee kersa rek da nga gis ne dafay am ay yiw yu baree bari kon lépp rek yiw la lu lu boo amee kersa ci lu baree bari yiw rek nga ciy jëlee kon nit dafa war a mën a am kersa waaye bu ñu ñëwee ba ci biir néegu sëy euh, ndax kersa war na cee mën a am mën na cee am d'une part waaye beneen part kersa waru cee am d'une mooy lan muy jigéen muy góor xam naa tey dañuy ñëw ci wàllu jigéen ñi incha allah bu ñëwaatee ñu ñëw ci wàllu góor yi waaye jigéen ci biir néegu sëy war naa rusa wax jëkkëram yenn terme yi war na jëkkëram sant ko dara mu bañ war na Hmm? Euh, mu xool jëkkëram ba mu neex ko ñu jote wala nangam wala sàngam mu koy génneel ay baat yu ñaaw lu ci mel ni saaga wala sax ci ay geste wala ci ay acte muy mu koy def loo xam ne ni euh, dina ci jëlee dina ci jëlee kersa euh, ndax jigéen mën na mën na tey joteeg borom këram seytaane mën ko mu saaga ko wala sax mu mu soode ko wala sax mu nagg ay waa yàllam wala leneen ak leneen ndax dañ ko fii gis loolu jigéen war na koo rus rus a def jëkkëram ndax wax yenn baat yu ñaaw yi bu guddee ngeen bëgg a nekkaat wala nga def ko lenn lu ñaaw bu guddee ngeen bëgg a nekkaat ku nekk war a bégal sa morom wala moom mu lay bégal loolu jigéen war na ko rus ci biir néegu sëy waaye nag bu ñëwee ba ci biir néegu sëy bi trois et mois kese ñoo des ah loolu jigéen waru cee am benn ker sax ndax nee nañ sëy jaamu yàlla la kon ni nga koy defee ci anam bu dagana yàlla di la ci bindal tuyaaba kon loolu defe naa waroo rus def dara waroo rus def benn act boo xam ne ni day bégal sa borom kër waroo rus def yaramu neen ci kanamam waroo rus di ko wax chéri je t'aime waroo rus sax di ko wax moo nunu damul au téléphone waroo rus sax nag di ko message naan ko je t'aime je pense beaucoup à maa ngi lay xalaat ah def comme ni sama xarit di def dama lay xalaat bay lox yooyu jigéen tamit war na am ay terme boppam hmm? jigéen war na jonge jonge boo xam ne ni day am ay terme terme boppam loolu waru ko waru ko rus te nee naa kersa bu bari rek da lay yóbbu ci rëy te rëy baaxul te yonent salaay salaam nee na ku rëy du dugg aljanna kon nañ jéem a woyof dindi kersa gi entre sa jëkkër waroo ci rus benn yoon lu la neex defal bu dee yéen ñaar doo nga nekk yéen ñaar doo nga nekk defalu la neex bul ko tere sa partie intime benn yoon sa partie sa yaram li ko dalee ca karaw bopp ba ci wetu wewu tànk bu ko ci teree dara dara bu ko ci rusa defal tamit dara ndax sa droit sa sa droit la ba pare dalaa lew kon dangaa war a def lu la neex aisément melal melal ni nga yor sa doom booy sang rek fu nekk ngay bomb fu la neex ngay dugal sa loxo fu la neex nga koy génn kon noonu la rek mais bu ci kersa ñëwee rek day indi blocage bu baree bare ndax des fois jigéen da nga naan damay rus sama sama jëkkër gis samay weer damay rus sama jëkkër gis sama awra damay rus sama jëkkër di di sëy man ci lumière yooyu yu bëree bëri day am waaye kersa googu da nga koy xeex ba mu deñ soo ko xeexul mu deñ rek moo la yóbbee ci rëy te rëy baaxul yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla musal ci rëy rëy yàlla rek moo ko moom nee na ko xëccoo man ma diri la yóbbu la jahannama te loolu kenn bëgg ko yàlla nañu yàlla musal ci yooyu xeetu rëy kon kersa daal pour ñun war nañ koo xeex ba mu deñ ba mu deñ carrément ba mu deñ ba jeex tàkk tàkk tàkk ci biir néegu sëy bi ci communication ci comportement waaye tamit ci acte bi ci biir la biir néeg bi kooku jigéen ki war na koo xeex ba mu dañ petit à petit nga koy def comme ni ma ko waxee woon day dem ba jeex incha allah kon ñi ngi leen di bëggee yéen ñëpp bàyyiwuma kenn ziar naa ñëpp ñëpp ñëpp wax dëgg yàlla bëggee naa leen lu baree bari Toumani Coulibaly macha allah kooku dañu def vidéo te du commentaire macha allah sama mag bëggee naa lu baree bari El Hadj moom tamit macha allah yéen daal maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ziar naa ñëpp bàyyiwuma kenn personne ñëpp. fii laa leen def sama biir xol bi tonton Jéeri maa ngi lay bégge bu baax a baax yàlla na yàlla saafara macha allah bégge na ñëpp ziar ñëpp ñu yemandi fii rek incha allahu ba beneen wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu